dalin ak jàmm ci la yéen kay xëy gën tey mbirum parrainage bi def nañ ko ba noppi lu toll ci ñaar fukk ak juróom-ñaar ci ay candidat ñoo yëkkatoon seen loxo ngir boole leen ci wàllu waññi geek saytu gi Rewmi ko tey jënd ci cëppaandaw ga société civile gis nañu ne dëgg-dëgg mbiri jëmul kër ndax am na juróomi rëq-rëq yoo xam ne nemee ko ci wàññeel mbirum parrainage bi mu njaay si ak ñu ñam ne juróomi rëq-rëq yooyu dara waru ko lu may yàkkamti nga xam ne ko ngir rek fexe ba indi ci réewu Sénégal loi ñeel mbirum parrainage bi nga xam ne bi waxtaan wi ci waroon am dëgg-dëgg amu ci moo taxit si sa ak àndandooma dañoo rek amul courage Abdou Mbaye ne PV yi xam ne jox lañ ko daanaka PV li yoo xam ne benn jaru ci yoon Birame Seck bu farin sëyil moom itam ci yéen kaay bi mooy mandargal la dëgg-dëgg parrainage bi ca ndoorteel ga rek lañu ko la jiy Cheikh Adjibou Soumaré ne ne ndax réew

daanaka jaral mbir mi ci yoon vox populi ne bu ñu xool dëgg-dëgg nag li Sénégal gaañ ñi ngi ci jaaxle daanaka li fi ak élection présidentielle ku toog am nen du tocca ndax dara wàllu ko lu may ci processus électoral bi ak lépp na ci wàllu ndax seen candidature mbirum ndax tey jii leen juróom-ñaari sage yu conseil constitutionnel woolu ngir ñu wax leen dëgg-dëgg ndax seen mbirum parrainage ba lañ doon dabu ndax dañ leen koy nangul wala dañ leen koy bañal Dakar tam si ki ñu bañal candidature moom Pape Diop njiital convergence bokk gis-gis yéen kay fi ñu toll ak jaay doole dëgg-dëgg moo am ci réewu Sénégal te ñi xam ñoo fare ci nguur gi ak loi ñeel mbirum parrainage bi nga xam ne indi nañ ko ci moo tax moom mi fi nekkoon maire bu Ndakaaru nekkoon fi njiital assemblée nationale nekkoon fi njiital sénat ci yéen cabinet bu ñu waxul ci réew mi réew dugg ci guute goo xam ne gi kenn seen xel dal na ci ñoom ci seen liggéey bi nga xam ne moom lañ leen dénk moo tax yéen cabinet conseil de guerre dëgg-dëgg la juróom-ñaari charge conseil constitutionnel di def fi ñu toll ni opposition bu Sénégal gën mere gi ñu mere juróom-ñaari charge conseil constitutionnel doxam ñaxtu boobu la dàq nañ ko ba jëmmi jamono Abdoul Mbaye njiital activité ci ne kabidir Rewmi Quotidien ne donte ne bëgg nañ ko gàntalal lu jëm ci candidature bi mu bëgg samp ci élection présidentielle yu 2019 waaye loolu lay du ci dellu gannaaw benn yoon ndax def na recours ca conseil constitutionnel ngir juróom benn junni ak juróom-ñeent téeméer parrain yi xam ne dañ ko ko bañal ñu mën cee dellu gannaaw yéen kaay bu fekkee ne Abdoul Mbaye moom def na recours ca conseil constitutionnel kenn doon xaar mu def rabat d'arrêt bi xam ne bi ñu doon xaar ay soxna si ministre bi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu tourisme moo koy wéy di jëlaat ak lu ci mën da lu ne yéen ci Afrique mooy tëj ci biir kaso bi lu ko tëj ci réewu Sénégal